ginnaaw bu mu ubbee li nga xamante ni mooy c'est le bon TV sénégalais yi daal di ko ci gunge lool mu dellu si waat andi c'est le bon ak c'est le bon sécurité kona mbokkum ndeyu réew l'activiste borom booy mayee mayal ku la neex waaye boo bëggee dégg-dëgg jox ma nopp kona andi waar na lu bees tax nu mu c'est le bon chifa c'est le bon sifa. médecine traditionnelle 100 pour bio faiblesse sexuelle bi lëmba réew yor nañ ci garab yu efficace garab yi soo ko naanee madame de bee nga ne ko a mu ni la a ndax suñu garab yi faiblesse sexuelle moo ci mën am nañ garab yoo xamante dafa yokk sa aura. te du am effet secondaire am nañ ay garab yi nga xamante ni moo gaaw ci ndoxum siti wàllu am nañ ay yi nga boo ko sangoowee dafa lay may bayre am nañ ay sunguf yoo xamante ni bépp cat bu nekk ci yow da koy raxas ba mu set c'est le bon siva wàllu asma traitement baa ngi fi am nañ ay pommade yoo xamante ni dafay maye yaram ci diir bu gàtt bàyyiwuñu dara bépp xeetu AVC boo ñëwee seet suñu ñu daal di lay defal traitement bu mucc ay da nga am jafe-jafe wax sa kàddu leerul sa gis-gis leerul liggéey bi nag kon naa def ci ànd ak ñi seen xam-xam màcc lool ci liñ fi lim suñu boutique bi garab yi ci nekk set na sell na xam-xamu veux la boo ci bëggee am lu leer 78 622 28 93 wala 76 143 97 31 suñu adresse mi ngi ci département bu Kër Massar cité en phase foyer des jeunes c'est le bon sifa seen wér gu yaram mooy suñu soxla jiaar kontaane jox cër mbokk àdduna jiaar kontaane jox cër mbokk internet c'est le bon TV konaa mbokkum réew mi ci seen chaîne la chaîne du peuple la chaîne de la vérité ci sen chronique comme nañ len kay defale sa su ci euh, lepp luy actualité ak way réew mi euh, di len wax bak bi rek dolé jën ndox la dolé saxaar la mais dolé chaîne YouTube site internet abonnement aimer commentaire et partager de len ci nek ndax loolu moy doole ji surtout nak di aimer vidéo yi donc diko ko ku commencé vidéo aussi nga kay sétane ba mu jeex ngir commentaire yi mën a positif ndax damay soxla sen xalat ah donc ku am ñaari jund yo may mayal ku la neex waye so bëggee dégg-dégg jàppal C'est le bon TV tay nak ñaari ponk la ñuy teunk ci waxtaan wu gàtt ci mbirum Cheikh Bara ak euh, campagne de diabolisation wala de nuire wala sax léegi nekkatul ndëmb ndëmb tey maam ñi juk doon ay dëmm nga xamni tay paré nañ pour lekk nit ngir seen bëgg-bëgg euh, euh, TFM nekk ci wala GFM nekk ci barki dem bu Babacar Fall la woon ba ma déggaat ku mel ni Malick mu yëkkati kàddu yu ñaaw yu yu salté yu diaboliser euh, dem ba Ousmane Sonko nekk ci kaso bi ñu koy fenal di ko di ko jéem a tuutal di ko jéem a décrédibiliser suñu tàyyiwul ñun duñu tàyyi seen Ousmane bi muy nekk ci réew mi di wax di dox lan koy solal mbob mbob avocat diko défendre ndax japp ni il est seul contre tous ndax japp ni dañ ko bëgg nuire dañ ko bëgg fagagal dañ ko bëgg yak sakamtuma nak bu démé bu teud ci lalu hôpital dem bu teud ci kasso bu ngeen bayiwu rek duñu bayyi sem mu ngi doon dox ngeen di ko toroxal mu dem ba tëdd kaso tëdd tëdd tëdd kaso injustement tëdd euh, ci lalu hôpital injustement Amulen lenen leneen lu ngeen tegaat ci dara lu lu ñaaw ñun war nañu am fulay ñu nit lepp lu ngeen tek ci kaw lu ñaaw ñu dindi ko bam set xamal len ni ay nit yu yées ngeen ay nit yu bon ngeen kon man bayyi len képp ku nga xamante ni moo ngi wax lu ñaaw ci projet bi wala ci jëmmi Ousmane Sonko bayyi leen ñi ko mën a tontu ñu tontu ko parce que kenn ku ci nekk nee naa leen mën ci projet bi na def kon donc ñu dem déglu kaddu yi salté yu tilimi malik jandum yëkëti tek ko ci kaw ki nga xamanteni mom moy euh Ousmane Sonko ñu ci wat euh président Ablaye wad japp nañ ko fi tej ko tejati ko tejati ko musul wax ne dama febar musul wax ne euh wala damay def grève de la faim wala lu ni mel Idrissa Seck ba ñukoy japp la leen ni ngi ni dem ñing may japp ma ngi dem mais limu mëna xamal aduna ak wa Sénégal modi ni lu wokkulu deureum wokkuma febaruma je ne suis atteint d'aucune maladie cliniquement décelable su ma duggee ci seeni loxo lepp luma ma jël seen responsabilité la karim wad bañ koy tej ñepp dañ ni won ki xamul ay rigueur carcéral bu ko tejé mo moytul falay falay falay doxé faatu mbaa mu feebar karim nemu mu pendant 3 ans lañ ko tej ba ni ñu ko bàyyee xalifa ababacar sall man dem na ba prison seeti ji mu affronter la situation avec beaucoup de courage ak gëm-gëm bu am solo musul déclarer ni dafa fièvre musul déclarer ni alors euh, damay def grève de la faim wala lu ni mel ba tay ji ñi ngi genn ñu leen di réhabiliter donc Ousmane Sonko dans sa quête euh, de la liberté ci quête du pouvoir bi nga xamné mom lay def il faut que mu mu mu endurant. gaay yi ko gis gis ngeen kaddu yu ñaaw yi Malick Thiam yëg té nak bu doon kaddu yi deug la sax. mën na la bañ a metti même bu doon dëgg la wax dafa jooy wax ne lu tax nga ma jooy mu ne dañ maa wax fuñ ma war ta waxee dañ maa wax nuñ ma war ta waxee dañ maa wax fuñ kuñ ma war ta waxal maanaam même bu doon Malick Thiandoum kàddu yi mu yëkkati dëgg la par exemple bu doon dëgg la est ce que moment bi war na ko yëkkati di ko teg ci deru joomu aadama te nag li ma si metti mu ngi mel ni Ousmane Sonko moom lañ dégg mu jooy wala mu yuuxu wala mu wala mu saalit wala mu wax dara luy firndeel ni moom dafa dafa saalit wala dafa jooy comme ñoom ñu ngi koy bëgg a gëmloowee nit ñi te pourtant ci beneen côté bi dëgg Ousmane Sonko sax dafa dafa waneeg njàmbaar waneeg ngëm yàlla déglul

Euh, le non a un sens quand tu as la possibilité de dire le oui a un sens quand tu as la possibilité de dire non madame il suffit que Ousmane Sonko ne woon oui chef nanguna naa Macky Sall may ko jamm muy dundou comme ñepp ni ñuy dundé ci alalu askan bi kon c'est pas la peine sax ñun ñu dem bu Ousmane di dugg kasso ñu ñuy wan ñuy xam courage Ousmane Sonko yalla dafa dogal ñun xam nañu courage Ousmane Sonko depuis le début xam nañ ko bu yagg mais yeen nak xaw ma lan ngeen jublu ci li ngeen di def waaye du ngeen ci am ndam ndax amul benn sénégalais bu ngeen mën a wax jàkkaarloog moom nekk Ousmane Sonko yaafus la wala dafa ragal wala dafa ragal kaso ba mu gëm la ndax Ousmane Sonko 2014 ba tey ñu ngi koy teg ay fitna 2014 ba tey xamoon na ni kaso dina bokk ci carrière am xam na ni sax bakkanam sax pare nañ pour jël ko li mu dund rek la 16 ñu koy ñu koy ñu koy pomp di ko toroxal. tey yéen ñu bëgg a gëmloo ne Ousmane Sonko eh, bañ na sax ba ci fin bi maa ngi taal leen Ousmane dafa war a nangoo endurer mais imaginez ku ñu rajee rey ay militants tëj mille deux cent et quelques personne ndax moom di ko toroxal tëj ko cinquante cinq jours këram jiñ ko viol jiñ ko menace de mort jiñ ko terroriste jiñ ko jiñ ko jiñ ko mais traité ko de tous les noms d'oiseaux dem ba ne sax dëmm la loolu yëpp mu di ko muñ ci réew mii te kenn gënu ko fi juddu. kenn ëppalewu ko fi dara mu judd fa mu war a juddoo doon sénégalais kon tout le ñu di ko teg lu ñaaw lii lépp ci réew mi Ousmane musul onk musul jooy musul wax tey mu dugg kaso ngeen ngeen jàpp ne ñun xamatuñ ci moom dara ngeen génn ngeen ñu bëgg di indil ay xibaar yu bon yu yu koy décrédibiliser bëgg ñu gëmloo askan bi ñun bu ñu noppee ci loolu ay jaam lañ Malick Thiandoum yaa bon Malick Thiandoum li Ousmane Sonko dund sa baay bu ko dundoon yow doo judd Ousmane Sonko li ko nguur gi di teg maanaam li état jël. les moyens de répression de l'État, l'énergie énergie l'État, état sont soble yokku sénégalais qui été été l'immigration, immigration sénégal a ngi metti état bi talul dara lu Ousmane Sonko ngeen war a dénoncer Il ñu le ministre du commerce le ministre du tourisme le tourisme Sénégal a na état bi plus concentré au ministre de l'intérieur, et ngay ministre de la justice ñaari ministre yooyu rek ñooy fonctionner ndax Ousmane Sonko ngeen war a dénoncer injustice bi ñu jël ak les moyens de répression de l'état yi ñu jël yépp def ko ci benn nit ak ni mu àndal bàyyi les besoins des sénégalais bàyyi bëgg-bëgg ak askan wi coono gi taxoon ñu fal Macky Sall ngeen war ko denee so en tant que des journalistes ngeen di duul di wax ay intoxication di toog di fen di bëgg a suul Sénégal nag day suul ndaanaan da ngeen di suul jàmbaar mais Ousmane Sonko du ko nuy suul ndax yàlla daf ko defal lu jafe daf ko defal ay nit bëgg ko te yàlla tax te lépp lu ngeen ko waxal ci lu bon ñu génn dindi ko ba mu set loolu amu leen ko seeni bàyyi amu ko Macky Sall amu ko kon Ousmane Sonko ci penc mii du kenn moo koy jéem a tilimam Malick Thiandoum nee na il doit il doit être endurant moo tax xamuloo dara on est des témoins des faits Ousmane Sonko li mu enduré jusqu'à maintenant ku ko juróon war nga koo mën a yërëm li Daaru Mbay woyoon rek xaw ma Daaru Mbay la xaw ma Xaar Mbay ma jaaga xale yee ku leen juróon yërëm leen waaye wallaahi Ousmane Sonko ak xale yi Sénégal ku leen juróon yërëm leen kon pour man yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg ci Ousmane Sonko su doon lu jaadu la sax c'est pas le moment ci réew mu ñuy woowee réewu Sénégal réew mu ñuy woowee réewum teraanga réew mu ñuy woowee ne ñun ay jullit lañ réew mu ñuy woowee ne ñun ay taalibe lañ mag ñu baax ñi réew mu ñuy woowee ne réew mii kat benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nit dem ba dugg kaso léegi Sénégal da ngay dem ba dugg kaso ñu di la tuumaal ci Ousmane Sonko la am bu njëkk lu luñ la mësaan di def boo duggee kaso andeysaan luñ la mësaan di def boo tëddee feebar andeysaan luñ la mësaan di def boo dee ñu ne andeysaan mais léegi deg usman Ousmane ko moom day dem ba dugg kaso nekk ci fitna te encore une fois Ousmane ko jàmbatul jooyul ngeen indil ñu benn vidéo wala benn audio wala benn message bu Ousmane ko dugg ci kaso bi di jooy wala muy jàmbat ku ñu jël cinquante cinq jours tëj la sa biir kër di torturer sa njaboot di sonal sa njaboot ba ñoo am bac di sonal say soxna kenn mësulaa dégg nga jooy. tey nga dugg kaso même pas une semaine di résister Ousmane Sonko dafay résister c'est un résistant ne woon na leen Macky Sall dama ko jox sama bakkan wala yéen da ngeen fàtte loolu dama bind sama testament wala yéen da ngeen fàtte loolu wala ngeen foogoon Ousmane Sonko da doon wax rek Ousmane Sonko ne woon na man Macky Sall bu paree na na pour rey ma wala ma rey ko dafa joxe bakkanam ngir projet bi. moo waral muy entamer une grève de la faim moo tax xamu dara grève de la faim sorte de résistance là. sorte de bañ la moo tax dégg naa sax ay oustaz ay. ay grève de la ci dee xaw ma dangay ngay xaru ñoom ay ñoom moom ñoom fan lañ war a mën a waxee rek bu ñuy teg nit lan la lislaam wax ci teg nit injustice lan la lislaam wax nguur jël doolee nguur di ko dóor askanam lan la ci lislaam wax lan la lislaam wax ci nguur gu nga xamante ni tey moo ngi fooyee pasar pasare alalu askanam di noot askanam ngir ngir ngir ngir ngir nekk ci continuer nekk ci nguur lan la ci lislaam wax déedéet du ngeen ko wax bu lislaam bu nguur di noot askan wi lislaam li mu ci wax ñemewu leen ko wax bu nguur di rey askan wi lislaam li mu ci wax ñemewu leen ko wax waaye bu askan wi fippoo ngeen jug ne yàlla nee na yonent bi nee jàmm wala li lii ko def da ngaa xaru yéenay naafeq yéen ñi woowee seen bopp ay kilifa diine xooma ay ay oustaz ngeen xooma lu ngeen doon gis naa quelques oustaz yi naan ay grève la faim il faut que aussi ci ci ci suñu constitution te Ousmane Sonko ben moyen la am fim mu ci bir kaso pour résister moy mu def grève de la faim la preuve Pape Alé il l'a fait la preuve ñu nek ci kaso bi yëpp ben puissance lañu am ben muy grève de la faim mais xamulen leen dara en tant que journaliste hypocrite ngeen sen jang du len jariñ ndax hypocrisie en tant que des oustaz sen jang du len jariñ ndax hypocrisie Ousmane Sonko li mu def diine moo ko wax il dañ ko teg mbir injustement jaay ko doole jiñ ko sàcckatu portable jiñ ko reykatu nit jiñ ko lépp toutes les charges ñu teg ko ci kawam. te sénégale yëpp xam nañ ne lenn dong moo tax ñu téye ci kaso bi mooy li mu nangu te li mu nekk anti système li mu nangu te ànd ak système bi ci noot gi ñuy noot sénégalais yi ci dil au dos des sénégalais bu demoon ci dialogue bi barke li mu wax na ko démb su ma déggaloon lii du ko dal Ousmane Sonko su nangu woon dem ci dialogue du dile au dos des Sénégal comme tous les tout le monde le font comme comme ay Ablaye Wade yooyu ngay lim di exemple ay Karim Wade ak ay Khalifa Sall mais loolu c'est d'insulter l'intelligence des Sénégalais ngeen jël us ay Khalifa Sall ay Karim Wade di ko di di ko di di non di natt njàmbaaru Ousmane Sonko ci ñooñu ñooñu Ousmane du seen nawle ñooñu lu ñooñu la leen génnee ci kaso bi su ko Ousmane bëggoon suba mu génn Karim bëccëg lañ ko tëj ci sàcc aloolu askan bi mu génn guddi dem toog Qatar kooku ngeen a dëkkale ki nga xam ne dafa toog fii ci sénégalais ñu téye nangu passeport am téye ko contrôle judiciaire pendant des années injustement mu toog fii Sénégal di dundandoo sénégalais yi ak seen i jafe-jafe te bu ko neexoon benn moo lay wax Macky Sall may ko jàmm. ba nii mu nekkee ci kaso bi nii nii nii su ko neexoon suba suba suba mu gën leen a libre yéen mais na pas pour wor askan bi rek wor ay conviction am mu gëm yalla gëm askan mu gëm ay conviction am ay valeurs yo xam dañ ko faté won ci homme politique dañ ko faté won ci sénégalais Ousmane Sonko di muy nek ci mom ngeen war ko ngeen war ko fësal war ko wane ngeen koy jéem a suul a bon valeurs yi nek ci Ousmane Sonko lutax mëno len ko wax malik Thiandoum yéen a bon valeurs yi nek ci Ousmane Sonko bu nekkoon ci sundour tay Sénégal du mel Sénégal ko defal lepp def ko euh, xaw lan acteur xaw lan euh, artiste planétaire. sénégalais yi defal ko léppam ci àdduna tey ñu ngi lor sénégalais bi leen lekk pour ses intérêts crypto personnels tey Youssou Ndour jël teleem def ko à la faveur de l' état te contrairement en 2011 télé bi tey bu ñu musoon taal benn pëna ci réew mi mu génn ànd ak sénégalais yi tey comme mu ngi bénéficié wu ci la argent public mu ngi bénéficié wu ci état Youssou Ndour noppi ci jafe-jafe askan bi Ousmane Sonko bu mel ne Youssou Ndour du dund lu muy dund yéen bàyyi leen xaste yéen yéen a warta wax yéen waa Futur Média seen kàddu waroo leen ko yëkkati di wax kenn lu ñaaw yéen gën a yées ci àdduna yéen a gën a bon ci àdduna yéen a mbubboo askan wi ba am lu ngeen di am Youssou Ndour dafa mbubboo askan bi à tant que artiste ba am lu muy am mbubboo askan bi à tant que euh, chef d'entreprise ba am lu muy am tey wan ginnaaw askan wi ñu war a wax lii ngeen génn naan ñun ngeen di jéem a Ousmane Sonko ngeen di jéem a traité de mauvaise di ko wax lu ñaaw naan ay dafa dafa saalit ak ay dafa dafa dafa war a endurant mais manque d' expérience ak xanaa il sénégalais am sont amnésiques Ousmane Sonko ngeen di wax di tudd endurance. koo xam ne Sénégal ko jaral mu perte léppam ñu dàq ko liggéey di rey ay militant di ko toroxal di ko di ko jaay doole di ko def lu nekk. di ko def lu nekk ba ñu mu jàppoon ne ay allié am lañ ànd ak ñoom di politique ñu wëlbatiku war ko tuun gu ñuul kukk di ko di ko di ko di ko wax lu ñaaw Ousmane Sonko di muñ loolu yépp te bu ko neexoon tay tay tay tay su nangu woon condition yi ko mag Sall di proposé suba suba mu génn tey Ousmane Sonko su nangu woon bokk ci système bi yéen ñii di ko waxal lu ñaaw yéen a koy waxal lu rafet

xamul leen yéen ay doomu làpp tóongoon xamul leen bañ lu leen nit teg ngeen ndangu ko balaa ngeen di toog di xas Ousmane xeex xoox leen seen corporation bii Malick Thiandoum bii Macky Sall jël réduire leen en néant vous la presse ngeen xam ne yéen ay quatrième pouvoir amatoo leen nawle ci àdduna bi kenn nawlootul presse sénégalaise Macky Sall di jàpp nit ñi tëj ku wax lu ko naqari mu tëj presse chroniqueur képp koo xamante ni yaa ngi wax lu arrangé wul nguur gi ñu tëj la ci kaso bi lii moo war a doon seen revendication mais du jàpp Ousmane Sonko di ko lekk du jàpp Ousmane Sonko diko ko diaboliser Malick Thiandoum yaa bon tu n'as pas de leçon à donner à qui que ce soit vous à GFM yéen ni organiser petit gala de pervertir la jeunesse sénégalaise may len nit ñi jàmm arrêtez d'insulter l'intelligence des sénégalais bàyyi len Ousmane Sonko ngir yalla lek ngeen ko ba mu tëdd ci l'hôpital bàyyi len jàmbur li du sénégalais ñu jangal li suñuy dom di top nit diko yak diko yak ko yàq ba mu tëdd lalu l'hôpital tëdd prison nga continuer diko yak dafa ñaaw yéen kenn mënu mutu muutuwaale donc lii laa am lu may wax gis nga Ousmane Sonko li muy def résistance la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee woon suñuy jamono xam la la ñuy wax dafa daw yonent bi Màkka la juddoo fan la wootee Medina la gàddaay yonent bi dem na ba dugg ci xuntu ngir mucc ci ay noonam dugg ci xuntu yàlla fekk ko fa lëndal ko ko ak yàlla ak diggante yonent beeg yàlla nu ñu mel kon li Ousmane ko di dund mais xoolal da ciy génn. te xam naa ne ñun naafiq yi bu ñu fekkee woon jamono xam naa la yox yonent bi daa daw dañ koo dàq mu daw loolu la ñuy wax te yonent bi loolu sorte de résistance la bëgg na jaamu yàlla bëgg na woote fa ko bëgg a defee mu amul may ñu ko jàmm mu tuxu ñu koy topp ngir rey ko mu làqatu ba rëcc na tey ba lislaam taxaw tey bu ngeen ñëw naafiq yi gàtt xalaat yi xam nga la ngeen di wax yonent bi daa daw mooy résistance bi Ousmane Sonko di def nii rek maanaam psychologiquement mënoo leen ko détecter parce que amu leen xam-xam fi mu toll nii jàpp ngeen ni dafa tàppet moo tax muy résister wala Ousmane Sonko dafa leen waxoon lu leer Macky Sall dama la won dama laa jox suma man bañu ma ku ma ku ma mais kenn du ma toroxal damay dund ba ma naree dund ci njaam ma dee ci libre moo ma gënal ñun loolu lañ nouvelle génération ñun loolu lañ gëm ñun duñ ay làpputoo ñun li ñu gëm mooy xeex ba dee suñuy dignité dañ koy deewaale. mais duñ ko ñàkk di dund lii la soo ko di dund c'est très dur nag pour ngeen comprendre ko kon bu ngeen fekkee woon jamono yonent bi muy gàddaay di jóge Màkka di dem Médine ngir ngir taxawale ci lislaam ngir uti jàmm fu mu mën a jaamoo yàlla ba dugg ci xuntu bu ngeen ko fekkee woon da ngeen naan dafa daw parce que xamoo leen sorte de résistance boobu loolu ci résistance la bokk mooy fi nga nekk mënoo fa am jàmm comme man mi lu ma def fi ma nekk boo fa toogee noon bi dina ma faagaagal te projet bi may woote wala xeex bi may xeex duma ci am ndam te noon bi bu ma jàppee mooy am ndam ndax la ma doon def dootuma ko mën a def ma rëcc ba noon bi du jàpp continuer la ma nekkoon loolu résistance la mais gàtt xel moo tax sénégalais yi dañ naan dafa daw kon ku fekkee woon jamono yonent bi muy daw di dugg ci xunt bi da nga naan dafa daw te da doon résister tey su deful woon loolu tey l'islam bu taxaw parce que noon bi ëppoon na ko doole ëpp koy pexe Ousmane nag loolu la nekk di def noonu bi ëpp na ko doole ëpp na koy pexe waaye li ko yàlla may ak fit bi ko yàlla may ak li ko yàlla may ci résistance moom lay def moo tax ku xamul loolu da ngay foog ne dafa tiit wala dafa daw wala dafay déedéet te yéen ko gën a xam sax mais da ngeen di diaboliser. lii laa am lu ma doon wax pour waa groupe GFM particulièrement Malick Thiandoum vous êtes petit vraiment di yëkkati seen kàddu yi di ko jéem a dugal ci bopp sénégalais fi may daanelee nag mooy mbiru Cheikh Bara Ndiaye. duma ma di ci wax parce que Cheikh Bara on avait des relations personnelles yu am solo mu nek nit ku bax ma nek xalé bu ndaw mu jox ma cër respecté ma bëgg ma dégg téléphone dima wo ma woo di ma conseiller di ma sax teranga xam nga té man ak mom li ñu gisee wul kon suñ ko jappé dinañ wax lu rafet Cheikh Bara ci pays de droit waxuma sax ñin ni mais Cheikh Bara ci pays de droit amul lenn lu ko mëna a ci kasso bi mais nekkuñ ci pays de droit légui nak limay ñëw di wax Cheikh Bara nak du ay ñaan. du ay këram ma ngi nii yooyu yëpp day Macky Sall day taal maa guróom toog di reetaan yéen ñi koy wax yëpp maa ngi leen koy wax tey yaan ay sonn naag këram a ngi ne gent naag ñii ni fa nekkoon ak Cheikh Bara ñi Macky Sall loolu da koy kontaan loo Cheikh Bara li koy génnee ci kaso bi lenn kese la moo mille et quelques détenus yeeg Ousmane Sonko ñi leen génn mooy ñun sénégalais yi ñun ñëpp ñu génnandoo benn bis ñun ñëpp comme li ñuy def concert de casserole waxuma sax ñu taal wala ñu yàq yooyu sax dafa sori soulèvement populaire par mère 1200 et quelques personnes yu nekk seen kër famille yëpp ak sénégalais yëpp ñu nga xam ne ñu ngi bir Sénégal kilo soble di metti ci ñom sénégalais ñu leen di ray barki demb lañ ne xalé bu am juroomi at lañu ray bu mujj fenn ñuy ray sénégalais sénégalais di dé di sonn yu choono état bi mobilisé wu yëpp ngir lan ngir képp ko xamné politiquement ya ngi leen bëgg sonal ñu xeex ak yow askan wi nak suñu jugoon ben jour xee na jub taxaw tàllal seeni loxo ñoom ñëpp kenn ku ne génn ci mbedd yi fees ko un million de personnes bu génnee Macky Sall xam ni lii mu nekkee du dëgg mu dellu ginnaaw mais du ay toog di ñaan ak di saraxu ak di jéem a def ay conférence de presse wala di def ay sitting ñu leen koy tere wala fajëree ngeen noonu sitting ngeen di def ñu leen koy tere barki dem bébé jën mooy bëri ak bàyyi ma ñoon gis ngeen mbedd yi ni ko booyi def trouble à l'ordre public leen di tere booy ba ñu bëree gis nga bébé jën buntu këram mel gis nga ci yoon bi agressé yi boy doon agressé dañ leen nak Macky Sall ndax leen da leen jël seen droit di leen toroxal ngeen nangou ko tok naan da ngeen koy ñaan li ngeen koy ñaan li leen ko mom te nit ki limu mom du ko ñaan encore une fois kon na gaay li tax Cheikh Bar génn ak kep ku ñuy toroxal waxoon na leen nga ne ah Macky Sall kep ku bañ mu toroxal la nga ak mom askan wi nak ñoo mëna jox def une soulèvement populaire kenn du yaq kenn du taal ñëpp génnandoo taxaw yor ay morceaux yu ne ko Macky doy lolou rek moy solution bi du leneen mais tok nan yalla bax nak seigne diw dina ci wax xeyna wala seigne diw kanam la jëm doxatu gelem lay doon gaay waxtan bi tay li la won su de <laughs> ngeen bal nak tangor bi fi moy lolou mo da defa ñak beek yoy def ñuy sonal mais dal ngeen xamni dal li moy waxtan bi euh su amé lu ci deng ngeen bal ñuko su jubé ngeen xamni suñu borom la alaykum wa rahmatullah